Euh, moom nag euh, mu nekk euh, personnalité politique maanaam dafay politique ci fi nga xam ne tey moom mooy Mbour waaye mu nekk benn leader boo xamante ni xam nañu ko ci biir réew mi xam nañu ko aussi ci bitim réew mu bëri ci ay combat yoo xamante ni ñoo ngi ko ci faral di dégg loo xamante ni jëm na ci tey askan wi ba pare tamit moom moo nekk adjointe plateforme Sénégal bi ñu bëgg Euh, ci la bokk mu bokk tamit ci coalition yeeyu askan wi ndax plateforme Sénégal bi ñu bëgg ñoom ci élection yi ñu passé dañu demoon ci coalition yeeyu askan wi euh, tey moom la ñu invité euh, Ndeye Fatou Blondin Diop ñoo ngi am mbégte ci wuy bi nga xam ne wuy si nga ko sunu invité invitation bi waaw maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu seen auditeurs yi ak certainement internautes yi hmm. xarala yu bees yi nga xam ne lépp lu ñuy def def ci jaar Euh, di am mbégte toog ñuy waxtaante tey jii ci mbirum Sénégal. faatu euh, Fatou Blondin Diop euh, présentation bi lan nga ci bëgg a yokk aussi. waaw li nga wax loolu wax nga li ci gën a am importance maanaam femme politique. ma boole ci femme de développement parce que loolu la ñu njëkk ba la ñuy yeggsi ci politique. Mhm. Euh, boole ci aussi femme euh, citoyenne pas activiste comme ni ñu koy waxee Sénégal mais activiste au sens euh, ni koy anglais di waxee maanaam militantisme. Mhm. maanaam bokkoon ci aar lu ñu bokk jiite ko fi sax ay ay moment moog man ak Guy Marius Sagna. bokkoon ci m 2 bokkoon ci porte parole yi. Mhm. Euh, donc euh, loolu lu am importance la. bokk mhm. tamit ci ëttu politique bi comme ni nga ko waxee. Mhm. nekk coordinatrice adjointe plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg. bi nga xam ne dafa ëmb ay ay ay parti ay mouvement ay ay ay personnalité ak ay association interprofessionnelle yu mel ni artisan yi coiffeur et cetera menuisier et tout ça donc euh, loolu ñu bokk ci ëttu politique bi. bokkoon fi tam ci ay élections demaloon nañ suñu bopp 2017 euh, comme suñu mandarga mooy bisaab bi euh, moo ñu tuddee woon ko assemblée bi ñu bëgg. Mhm. ñu demal suñu bopp parti yu bari yu mag fii suñu demal seen bopp. Ah voilà <laughs> demoon nañ fi tamit euh, bokk ci coalition Sonko président. Mhm. en 2019. Euh, bokk comme ni nga ko waxee ci coalition Yewwi Askan Wi. Mhm. voilà nekk conseillère départementale. bu Mbour. dans le département de Mbour jiite woon liste proportionnelle dans le département de Mbour. Mhm. bokkoon tamit ci investi yi nga xam ne Macky Sall ñemewu leen. ba ba xaar ba euh, ñemewu leen ba euh, tey tey seen candidature. Ah. bi ñu yegsee ci élection législative yi. ndax bokkoon nañ ci liste titulaire yi. Ah. yi nga xam ne finalement conseil constitutionnel dafa ne du ñu dem. léegi euh, Ndeye Fatou Blondin Diop euh, ñi nga xam ne tey euh, ñoo lay dégg vraiment ci Sénégal ak ci bitim réew aussi bëri na combat yi nga xamante ni tamit yaa ngi koy mënee Sénégal yu bëree bëri xam nañu ko mais dafa am ñoo xam ne bëggoon nañoo xam yow bi ngay nekk jeune fii danga nekkoon activiste te dañu gis aussi ne da nga xaw a pànk ndax mën nga ñu expliquer jamono jooju. waaw ñun dañu bokk ci génération bi nga xam ne euh, boo nekkoon lycée nekkoon université euh, da ngay am engagement politique te engagement politique boobu fi nga koy njëkk a teg mooy ci xam-xam maanaam ci jàng euh, ñi ko sos nan lan la ñu gisee yooyu projet yooyu société naka la war a doxee ñu koy wax la gauche traditionnelle waaw ñun foofu la ñu njëkk a bokk nekk tamit ñoo xam ne vraiment Euh, dañoo dañoo mës a bokk ci ñiy bañ parce que bokk ci famille boo xam ne euh, ba ñuy bañ boobu bañ metti na boobu bu ñu fekkee voilà metti na mm. bu ñu fekkee track sa kër mun nga ci dem kaso mm. euh, am ci ñu dem grève ñu yóbbu leen ay Kédougou Euh, Ari Oussouy. ban famille la noonu. Euh, famille Blondin Diop. Euh, bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañuy daan toog ca kër ga temps yooyu Jean Collin nekk fii di tëmbal ca kër ga. Mm-hmm. ay grenade lacrymogène. Mm-hmm. parce que rek neexuñu leen daal mm-hmm. comme maanaam noonu lañ daan xeexee boobu. voilà bokk ci nag ci ñi nga xam ne vraiment suñu grand yi. ñu bari ñu nekk tey jii ci ay personnalité politique euh, yu ñu respecté ñu Sénégal euh, dañ leen doon gis ak ñu euh, aîné yi ci famille ñu mel ne ñoom Landing ñu mel ne Dansokho ñu mel ne Bathily ah ak ñu mel ne le premier Abdoulaye Ly ak ñoo ñëpp ah. voilà vraiment ñooñu ñoo doon ànd ak grand yi nekk suñu ay grand ñu leen di xool di leen déglu di roy ci ñoom voilà donc ñun ci suñu bopp nag nekkoon ay élèves nekkoon ay étudiants Euh, bon bokkoon ci ñi nga xam ne bu amaan problème lycée grève bi kenn du ñu ci njëkk dañuy xeex ba sax ay anecdote yu tudde ñuy wax la bande à Bader muy benn bande boo xam ne Allemagne la nekkoon xam nga boobu lii yëpp ñëwagul woon voilà donc xeex dafa jafe woon xeex dafa jafe woon réseaux sociaux amul lu ne mën na la dal ba pare ñu taxaw ci rajo RTS ne dara dara xewul ñoom seen yoon nekku ci boo koy wax tamit ñi nga ñi nga am moo tax international mës am doole ñi xam ñi nekk feneen ñoom ñooy yëkkati combat boo gisee par exemple euh, ki combat wu euh, Omar Blondin bu mu gaañoo ay avocat français ñu mel ne Badinter ministre de de de euh, de la justice en France ah ak ak ak ñoom Daniel Cohn-Bendit mhm. ah qui di qui dirige les Verts en Allemagne ñooñu ñoo doon promotionnaire am ñooñu ñoo fexe ba Senghor nëpp nëppul ko parce que dañ ñëw fii ne dañ ko fekk mu xaru mhm. voilà comme Manka bu tey daf ñu koy fàttaliku bu baax mhm. dañ ko fekk ci néegam un jeune Euh, boo xam ne dañ ko jàpp ci bon mun nañ wax ne d'accorduñ ci li muy def mais ñu jàpp ko sain et sauf ñu jékki-jékki ne dafa xaru voilà donc boobu xeex gënoon na metti fuuf fuuf tey tey ñu taxaw mais mais mais euh, Fatou Ka Blondin ba léegi ma ngi leen di metti ah bien sûr parce que euh, loo xam ne boo ko surtout boo demee gis ne que euh, ñooñu euh, liñ doon xeex mi ngi fi ba tey liñ doon xeex mooy Afrique na moom boppam liñ doon xeex mooy ko gannaaw jox nañu indépendance na français yi génn ci à travers accords yi ñu yi fi bàyyi liñ doon xeex mooy Senghor mi nga xam ne moom ba ñuy def indépendance moom assimilation la gënoon jëm que ci indépendance bu leer naññ ñu dellu si moo tax Senghor moom daf ko defoon combat personnel ba nga xam ne Senghor moom sax bi mu demee ba nekkatul président dafa dem académie française mhm. dem dëkk France dem ah. jébbalu France ñu delloo suñu ay yaxam d'accord donc boo koy seet ba seet ku ci nekk trajectoire bi xeexu idéologie la woon mais gannaaw fi Afrique la woon mu am ay yoo xam ne yeggaguñ ci woon ci liberté ñu xam ne nit ki lu mu nekk nekk xale euh, bu taxawee di xeex dañ ko war a déglu mais du ñu ñëw ne kii moom dafay yàq day jaxase nii la mel naa la mel du ñu déglu sax lu muy wax ci gannaaw su du loolu période boobu la woon. d'accord jërëjëf euh, Ndeye Fatou euh, Blondin euh, Diop yow sànq maa ngi dégg ci sa biir wax nga ne li nga xam ne moom la Blondin Diop doon xeex ak ak ñeneen ak ñeneen. ba léegi jógu fi mooy français yi génne seen loxo ci sunu réew wala tey euh, ni ñu euh, téyee sunu sunu sunu koomu réew euh, ci loolu ci la ñuy rebondir ndax dañu gis ne ci actualité la président bu France di Emmanuel Macron moom dafa demoon fi nga xam ne mooy Algérie bëri na loo xamante ni wax na ko fa waaye liñ si mën a dindi rek mu xaw a méngoo ak fi nga daaneele mooy dafa wax ne anti français ci Afrique dafa gis ne dafa law te ñu bari dañ ko jël jàpp ne moo loolu la ñuy jël pour pour seen avenir mm-hmm. nee na anti français bi Afrique di wax mm-hmm. jëmalewul Afrique taxul Afrique suqaliku mm-hmm. waaye nee na moom dafa jàpp ne malentendu moo am te mbir mu ñu war a waxtaani la waaw anti français bi yow est-ce que yow sax da bokk si ñooñu man su ma déggee Macron di wax loolu dama ne ba léegi rek mi ngi wéy di juum ñun bañuñu France ñun suñu dëkk lañ bëgg kon suñu bëggee suñu dëkk di doxal suñu dëkk moom mu dégg ne dañ ko bañ ba di wax ci bañ boobu ba naan ñu yéen li ngeen ma bañ dee leen nii la mel ak naa la mel ak euh, nii ngeen war a doxee waru leen doxee nii ma ne ba léegi rek fa mu taxawoon fa la taxaw ba léegi déggul ñun lan la ñuy xeex. ñun xeexuñu français gis nga dëkk bi dafa comprendre gis nga dëkk bi euh, France li ñu ànd ak moom dafa yàgg te loolu. benn gouvernement benn président mënu ko dindi ñun dañu soxla France parce que mbuur géem a dëkk tourisme bi français yi dañ fay ñëw di fa indi koom-koom man loolu d'accord naa ci ñu joxal leen ay conditions yoo xam ne ñuy dugg ci artisanat bi di jël suñu produit yi suñu koom-koomu tourisme di dem man loolu dama ci d'accord dañ ko war a dëgëral du loolu la ñuy wax suñuy doom yi suñuy xarit yi suñuy papa yi ku ci nekk am nga jabar wala jëkkëru français métis ci dëkk bi bu vacances yi jotee nga gis leen ñooñu ay double nationalité lañ yore donc ba léegi waxuñu foofu li ñuy wax mooy ba ñuy dem indépendance dafa am accord yoo xam ne lu jëm ci suñu xaalis ne lu jëm ci suñu suñu koom-koom économique lu jëm ci suñu sécurité militaire ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bi ñu toogee ba toog déjà bañ koy def man euh, jaaxal na ma lu tax. Mmh. loolu nekkul woon ci diggu waxtaan bi ci diggu négociation bi. Mmh. mais boo gisee président comme ni mu ko wax bu mel ne sengoor nga xam ne loolu du ko teg ci table bi. Mmh. voilà parce que moom voilà donc mais tey jii dafa gën a feeñ. parce que bu ñu demee ba Afrique yëpp ñuy gis dëkk Éthiopie ngi dem malgré la guerre mmh. Égypte ngi dem mmh. euh, de pourtant da jaar na fi printemps arabe ak ak ay coup d'état ak yu kenn xamul ñu gis euh, anglophonie mmh. Nigéria première puissance di ko xëccook Afrique du Sud euh, ñu gis Kenya di dem gis Rwanda di dem ñu gis ne que bu ñu jëlee pratiquement vingt pays Afrique yi gën a dem benn pays francophone bokk ci léegi ñu war a seet lan moo tax lan mooy dox fii lan moo dul dox fee loolu bi ñu ko saytoo ba saytu ñu gis ne que euh, vraiment suñu koom-koom ci boppam la ñu téyewul suñu koom-koom moom la ñu téyewul kan moo ko ay ay entreprise étrangère ñoo ko téye te France am na ci lu bari du moom rek léegi ñun li ñu bëgg mooy ñoom la fekk ñuy ñëw fii mais lu baax la ñun dañu soxla investisseur dañu soxla ñu xarañ ci technologie dañu soxla ñu xarañ ci jàngale dañu soxla yu bari donc yooyu yëpp soxla nañ ko wante bu ñu demee bay am suñu petrole mm-hmm. ah bu dee ca njëlbeen ba xamaguñu woon nu mu demee ba ba ñuy def xaatim contrat yu bon wante bu ñu demee ba xam gis ne yeneen dëkk yi ba ñu amee petrole nii lañ ko doxalee lii lañ ci am mm-hmm. kon bu ñun bu ñuy xaatim suñu contrat xanaa ñu war a doxal leneen mais mais madame bu la Blondin Diop français yi ñoom euh, seen intérêt réew moo leen intéressé ah. est-ce que tey ñun suñu njiit yi réew mi intéressé na leen. wala est-ce que du seenu ñàkk fayda. moom moo tax francais yi doxalee ak ak ak africain yi noonu. dama ci d'accord mais c'est que doon waxtaan lu tax Fran lu tax Emmanuel Macron di wax waxu. ñun fii anti français man foofu laa doon waxee. suñu suñu suñu suñu suñu suñu njiitu réew yi ñuy doxalee. Uh-huh. kooku mën nañ ci dellu si mën nañ ci sori. wante bu ñu yemee ci foofu non non njiitu réew yi ñoom dañoo jébbal. Euh, seen bopp France jébbal ñu ñun france yi jébbal suñu mu réew français yi loolu moo tax sénégalais bu nekk wala malien bu nekk foo xool gis fa français yi loolu moo tax ñuy wax anti français dëgg la mais mais mais ba léegi rek gis nga loolu argument de communication la pour barrer changement yi fi war a ñëw nga loolu da nga koy xam argument de communication yu ñuy jaaral parce que moom bu waxee dañ koy teg RFI xam nga yow ba nekkee Côte d'Ivoire nekk sénégale bëgg xam ne xew Sénégal léegi sax am na internet mais RFI ngay dem mais buñ la wax yow boo nekkee sénégalais nekk Sénégal suñ la fi wax waxi anti francais yow mi dëkk Sénégal yow xam nga ne yow sa sa sa sa dëkkandoo tubaab la. Mhm. xam nga du benn. donc ñoom bu ñuy wax affaire communication la ba pare bu ñu dellu siwee ci Emmanuel Macron dafa bëgg lépp lu France amoon comme passif lourd maanaam ay ay démb bu ñaaw. Mhm. mu bëgg ko régler ci regle bu yomb. gis nga Algérie ñoom dañ fa def presque. deux cents ans de colonie de peuplement du comme fii de colonisation dañ fa dëkkoon moom ko léegi ba ñuy dem mu jeex affaire bi jeex mu indi ger ñoom pendant trente ans tuddeewuñ ko guerre événement lañ ko doon nooy les événements d'Algérie nanguwuñu sax ne ñii nawle woon dañoo xam ne dañuy xeex voilà donc ñu nekk fa di fa jël seen pétrole di fa jël seen gaz di fa def ay essais ci biir désert bi léegi nag mu am seen diggante ba léegi indépendance bi ak xeex bi ak li ñu rey euh, maa ngi liir tey ci suba rek euh, benn historien Benjamin Stora muy expliquer ne problème bi mooy France daf ko bëgg a man Macron lay wax de waxuma suñu relation dafa bëgg a simplifier suñu histoire ak ñoom lu ñaaw li ci xew yépp mu ne noppi leen ci gëmm leen ci ñu dem suba fekk accords yi yi ko téye mi ngi fi ba léegi te accords yi kenn du ko wax loolu mënul am donc léegi su ko defee comme xam na ne yëf bi nii la demee doful mu daal di indi ci xelu nit ñi ci média yi ay affaire bañante ñun dañoo tal bañante ñun talu ñu bañante li ñu tal mooy naka la ñuy indi jo moomaatee suñu koom-koom suñu entreprise yu mag yi président bi au lieu muy jox marché marché yi di ko jox euh, beneen sosi mu jox ko fii suñu jën yi naka sa noonu suñu petrole suñu zircon suñu fer suñu yëpp naka lañuy def ba am ci lu takku ba nga xam ne koom-koom dina am xale yi nañ am liggéey. mais su ma dégloo li nga wax dafay mel ni réew bu ànd ak France da ngay deltu ginnaaw ci Afrique bu ànd ak moom euh, jëm ci kanam. gis nga euh, loolu Euh, dañ ko seetlu bi ñu xoolee colonisation parce que dëkk yu bari amoon nañu colon ay colonisation colo euh, pays al Angleterre colonisé ñoo ëpp fuuf yi français yi colonisé mais bi ñu demee dañu dem allemand yi ñoom ñoo njëkkoon dem mais gis nga allemand yi toog nañ par exemple beneen ñoom am nañ ci ay Afrique foo xam ne dañ fa doon euh, dañ fa doon noot nit ñi ba di leen rey ak leen takk jaam teg jaam dañu toogaat jàngaat histoire bi dellusi si ci ne lii ak lii lii suñu dëkk def dëkk bi lii ak lii lañ leen di dàmpee dellu ci seen gannaaw pour ne ñu mën a taxawaat tey jii mën a nekk ay nawle loolu la France nanguwul def boo gisee seen livre yi yi ñuy jàngale Afrique bokk ci bu ñuy célébrer seen victoire malgré li li dee ci africain yépp pour libérer France ñoom xamuñu ko ba nga xam ne bu bu cinquante français deewee malien Mali ñuy taxaw di ko woy fu nekk fekk des centaines de milliers d'Africains hmm. dee nañu pour France hmm. te français yi xamuñu ko donc loolu yëpp bu ko bëggee tënk ci ay affaire wu euh, bëgg ak bañante hmm, dama naan doful doon daf doful dafa bëgg ja li xale yi di wax dox ci suñu maayin ah. dafa bëgg ñi nga xam ne xamuñu mu yóbbu leen foofu wante yëf bi nekkul foofu léegi euh, Ndeye Fatou Blondin Diop est-ce que tey économiquement France est-ce que mën na développer demal boppam sans yenn pays africains yi comme la Sénégal Burkina Faso euh, le Sénégal euh, Côte d'Ivoire Niger waaw euh, néew ma mënul am parce que duma économiste spécialiste surtout économie France wante dina metti ci moom parce que lu bari loo xam ne daf ko soxla pour économie am Afrique la koy jële loolu moo tax monnaie bi moo tax mone bi comme ça bu koy jël du am presque benn frais day mel ne xaalisam la koy jënde du am frais de change te ñun dañu soxla devise donc boo xoolee ne par exemple uranium bi bi Niger moom euh, moom euh, ci source maanaam li indi indil électricité France euh, am na ñu koy jëlee ci ndox hydraulique am na ñu koy jox jëlee ci uranium am na ñu koy jëlee ci gaz pétrole ak yooyu yëpp yëpp am na mais ñoom li ñuy jëlee ci ci ci ci nucléaire maanaam uranium. Uh-huh. pour cent la fukk ak juróom-ñett. Uh-huh. boo xaatimee téeméer boo jël waaw téeméer boo jël. loolu Niger lañ koy jëlee. Uh-huh. gis nga Niger nu mu toll. amuñu sax fu ñu wasine gis nga wetu fañ koy defee Arlit ca kaw ca région boobu ñëfa dëkk ñoo gën a ndóol ci biir Niger te pourtant ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy joxe euh, téeméer boo jël fukk ak juróom-ñett ci lii indi euh, courant France. Ah. te xam nañ ne courant mooy doxal dëkk. ma ngi mel ni Kédougou rek ak voilà donc euh, loolu moo tax mu taxaw foofu ñi ngi naan Mali suuf suuf suufu Mali moom tamit or bi na mu fa toll kenn musu ci xool. Hmm. kenn musu ci wax kenn musu ci dellu ba bi junte militaire bi yegsee commencé ñuy commencé di xuloog di indi ci la ñuy soog a xayma. ñaata ci or te xam nga ne or mooy indi mone hmm. parce que booy génnee xaalis. Hmm. danga naan lii ci or laa am. Hmm. ba léegi ñu ngi foofu. bu ñu ñëwee ci suñu géej gi. ñu ñëw ak seen doole Union européenne. daal de ne dañuy def ay accord de pêche ah bu ñuy def accord de pêche yooyu bi ci mujj rek mooy nee nañu par exemple pour xawma euh, cinq ans euh, yu ñuy jël ci suñu géej gi ay ton dix milliards lañ ñu ndàmpe dix milliards cinq ans ñuy jël suñu géej gi motagul ñun amatuñ jën donc dañu teg lii lii waa jooju dee woon Amérique di wax naan teggil sa tànk ci sama put mënatuma noyyi mm-hmm. tey ji suñu koom-koom bi ñoom noon lañ ko def te ci li gën a metti mooy avant France rek la woon mais tey ji Union européenne ñoo dajaloo di ñëw parce que euh, président Allemagne bi ñëwoon fii naan daf ñuy seet si xam nga yow sa xamoo turam mm-hmm. mais xam lu mu fi wut si woon xool gaz bi ñuy wax ci Sénégal gannaaw Russie dañu am problème gaz bi ñuy wax ci Sénégal ñaata la ñuy ak naka lañ ci mën a doxalee ak union ak union européenne pour que dëkk yi nga xam ne dañu dépendre ci gaz ñu am ay contrat de gros nga xool gis nga Sénégal bu tuut bi toq bi war a négocier ak union européenne dëgg la donc loolu su ko defee dañuy def nañ daan def démb ak barki démb jël koo xam ne dafa am fuñ la téye parce que danga def loo xam ne peut-être euh, ñoom xam nañ ko wala da nga nooy bopp wala da nga bëgg xaalis da nga ñàkk fayda voilà du defan man gëm naa ne président yëpp a bëgg seen dëkk non man xam man président yëpp a bëgg seen dëkk loolu lu ma gëm la man man man gëwuma loolu man gëwuma loolu d'accord ma ci loolu ndax xam lu tax dafa am loo xam ne soo bëggee sa réew doo doxalee ak sa réew noonu. man man gisuma loolu man leen dama jàpp ne ñàkk bëgg sa réew la lenn am na si ñoo xam ne maa tay la am na si loo xam ne euh, maanaam yow yaa bëgg jaay sa bopp jaayala la waaw mën nga ko gisee noonu. ba léegi rek def def ceeg si la. man li ma xalaat mooy li ma xam ci position kuy jiit. lu metti la lu lu diis la. d'accord mais Ousmane Sonko dañu dégg discours am ak euh, France. ndax yow retrouver wu nga. ci discours Ousmane sonk moom wax na ko waxaat ko moom nekk fi comme li mu wax sànq rek di bañ ak di bëgg moom li mu wax mooy suñu ànd boog jëfalante koom-koom nañ ci gën a gis suñu bopp na gën a yamale bi na gën a yokk foofu foofu lañ taxaw na gën a yokk su fekkee ne nag loolu mooy dang maa bañ kon nañ ko jàpp ne dang maa bañ mais lii sama xeex man du affaire bañ ak bëgg lii sama xeex mooy lii ñuy koom-koom naa ci gën a gis sama bopp parce que man sama dëkk mënuma faju mënuma lekk aw samay sama sama njàng mi ngi sooke samay samay xale amuñu liggéey euh, samay tali gis nga leen samay assainissement gis nga leen sama lépp dara yembul te ñun ñi ngi jëfalante te yow yaa ngi ci am bëti ci defal sa dëkk ba mu naat ba mu def nii kon nañu gën a yemalante loolu la ñuy xeex loolu la ñuy xeex du ay affaire wu voilà Sonko wala wala Macron kii bëgg na kii kii bañ na ke wala français yi bëgg nañu sénégalais yi nga gis sa bopp d'accord jërëjëf euh, Ndeye Fatou Blondin Diop yow yaa nekk adjointe plateforme Sénégal bi ñu bëgg nga bokk ci coalition euh, Yewwi euh, Askan Wi ngay politique ci fi nga xam ne moom mooy mooy mbuur léegi ñu ñëw wax ci li nga xam ne tey moom mooy euh, hôpital euh, Dantec dinañu ñëw ci dundu gi cher gi dinañu ñëw aussi ci assemblée national mais hôpital Dantec euh, sànq maa ngi liir benn benn journal bi sax moo ko bind Walf Quotidien mu ne am na 73 médecins yoo xam ne dem nañu chômage technique léegi yow lan mooy sa xalaat ci hôpital Dantec ak 6 hectares yi nga xam ne dañ na dañuy tabax 3 yi jaay 3 xam nga loolu sax waxtaan nañ ci lu baree baree bari muy lu may rafetlu senegal euh, su problème amee euh, réseaux sociaux yi ñuy ŋaññ ñooy yuuxu euh, média classique yu mag yu bari yu ba yenn ci duñ ci wax lii réseaux sociaux yi ñoo yuuxu ba syndicalistes yi di wax di wax di wax di wax dem nañ plateau bu ne wax kenn yëkkatiwul seen wax gis nga lii scandale rek la but ba but muy ñu naan Sénégal dafa soxla trente milliards bay jaay suñu suuf bu nekk plateau ci booru géej di ko jaay ay privé ñuy laam-laame naan privé étranger la parce que nee nañu dañ ko fu mu nekk jaayeeguñ ko complètement FONSIS ñoo ko publier ci seen site ne dañ ko war a jaay trois hectares kon ku wax ñu ne leen ku leen ne dañ ko jaay fekk waxoon nañ ne dañ koy jaay te buñ ko defee rek ñun xam nañ Sénégal xam nañ ki ko war a jënd waxtaan nañoo moom ba pare fii dëkk bi noonu la ñuy doxalee. Hmm. muy premier problème deuxième problème mën naa sax ne boobu deuxième problème premier problème mooy maladie gis nga ba nit ñi yuuxoo ba yuuxu ci la ñuy soog a xam ne que dañu nar a génne maladie du jour au lendemain rek na la dem leen yow demal Touba yow demal dalal jàmm yow ki ngay wax demal Touba demal dalal jàmm demal Grand Yoff Idrissa Pouye demal fi et cetera yow est-ce que xam nga ni kii ndax mën na dem ak lu mu fay fekk ak ñi ngi koy xaar ak condition d'accueil ak feebar boo xam ne chaque jour dafa war a def dara ñii naan dialyse ñii naan cancer ñii naan ay maladies yoo xam ne vraiment yow boo waree bu sa ma bu demee congé rek yow da feebar lu ma jot ci diggante bi asamalaak ngay dem foo xam ne xamoo loo fay fekk ak war a defaraat lépp war a miin sa famille bi la war a fekk si malade dañ koy yóbbu di ko indi di ko jox lu lekk hôpital di ko jàppale donc famille bi yëpp jaaxle muy côté humain bi nga xam ne dafa mel ne dañ ko teg te gis nga man dama def benn remarque ah. dinañ ci ñëw bu ci kaname bés bi député euh, bokk gis-gis demee pouvoir bi ah. jour boobu la état bi am sañ-sañ jël jël bii décision xoolal chronologie muy wane ne ah ñun de ñun jeex na mun nañ def lu ñu neex ci dëkk bi amaat nañ majorité donc de, premier problème mooy côté humain nit ñi. Ah, ah. deuxième problème côté suuf si kenn mënu ko comprendre tey jii. ak problème suuf. amuñu xaalis amuñu trente milliards yu ñu def ci ci ci ci ci ci ci pour hôpital wu Sénégal. waaw kon bu fekkee ne dem nañ ba sonn nañ ko jox privé national parce que am na ko génn ne man defaloon naa leen offre. Ah. nii ak nii la demee. bay go obligé moom ci boppam di génnaat di wax ne lii rek du solution. am na yeneen solution mi ngi nii teg naa ko seen loxo il deux ans il y xaw ma ñaata temps lu tax jëluñu li lu tax ñu choisir beneen solution <laughs> donc mu doy waar mhm. troisième euh, troisième affaire bi mooy mhm. vraiment dafay won euh, euh, président Macky ak gouvernement bi fi ñu teg santé bi ci seen priorité est-ce que mën nga dégg loolu teg hôpital mhm. kenn mësu ko dégg. xel mënu ko nangu. xel mënul nangu teg hôpital. même yow même yow euh, madame euh, Ndeye Fatou Bolondé Diop euh, ñoom ñoo ngi wax ne dañuy jëlee malade yi fee yóbbu leen si yeneen hôpitaux te yow muy yow muy man mu ñi ñu déglu. yàgg ngaa dégg malade dem CTO ñu ne ko fees na mu dem dalal jàmm ñu ne ko fees na nga dem hôpital principal wala fan ñu ne la fees na léegi fu mu fees naturellement boo bëggee jël ñee foo leen yóbbu yokk yokk yi xam nga ne problème nga fay indi ah. man am naa ci benn kaar rek amagul sax ñetti weer euh, ñu war ko opérer euh, diabète bu compliqué ñu war ko amputé mais mu dem fii ñu ne ko le programme bi yéex parce que amul place fu ñu ko opérer salle opération ak créneau ak médecin yu sonn ba mu mujj gaañu donc trois léegi nag ñu yegg si ne ministre bi taxaw na ci télé bi di dàggasante di dàggasante man ku ma woo ma wuy si la ku kii ma xaw ma lan et cetera affaire bi nekkul foofu. même nee na bu leen neexee ngeen def enquête euh, parlementaire. waaw waaw ci man li ma gën a naqadi mooy ton bi mu jël ça c'est une affaire sérieuse te ñun bu ci suñu yoon génnee yoonu kan moo ci des ñun du soxlawul nga nekk spécialiste pour que boo demee hôpital Sénégal xam ne hôpital am na problème pour que booy faral di dem hôpital xam ne hôpital bii. ba yow da nga wër ba sonn ngay soog a yegg si fii et que enfin am nga benn buntu yaakaar bés buñ ko tëjee da nga war a jaaxle kooku soxlawul spécialiste donc bu ñu yegsee ba ci ñu ne tey jii euh, moom ministre bu muy wax nee na lépp mët na ñee ngi dem fii ñii ngi dem fii ñu bind na la léegi médecin yi chômage technique lañ kon kon impréparation moo moo ci am ñàkk wàcc gaawantu tëj gaawantu daq malaat gaawantu jaay suuf ba ba pare li fi ñu war a dem ak li ñu war a def lii mooy wane ne que. Hmm. pare bi en tout cas bu amoon tamit des na. d'accord léegi euh, jërëjëf euh, Ndeye Fatou euh, Blondin Diop. dafa am tamit loo xam ne. am na quelques forums civils ñoo xam ne wax nañ ci. Hmm. yow xaw ma ba xam wax nga si wala waxoo si yëngoo ko wala yëgoo ko hmm. mais fan yi jàll dañu gis benn décret bu njiitu réew mi. boo xam ne dafa modifier code des marché publics. bi mu ko modifier dafa wax ne ñi nga xam ne ñooy waa Petrosen. ak waa ak SAR ak Sénélec ñoom bokkutuñu ci procédure code des marchés publics ñenn ñi dañoo jàpp ne ak ndëngate tey mën na si am ndax ñooñu dañoo wax lépp lu ñu soxla ci produit gaz gazier wala pétrolier wala lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jaay ko ak jënd ko wala lépp lu ñu tabax ñoom jëm ci wàllum infrastructure de transport ñoom jëlul ñu def ay appel d'offre ak yooyu yow loolu ban xalaat nga ci am. waa xam nga ne loolu vraiment dañuy continuer di ko ñaawlu. ñuy rappeler ne amoon na fi ay jamono ñu génne sax yenn ay entreprise wala yenn ay direction générale euh, ne léegi euh, corps de contrôle du leen xayma xam nga. Hmm. c'est-à-dire bu ñuy xool li li li li président Macky Sall gën a yàq ci Sénégal mooy euh, foye suñuy institution. Hmm. ak ak ak ak li ñuy woowee mal gouvernance hmm. moo tax su ma leen di dégg ñuy wax tali yi. pont ak yooyu affaire bi euh, comme ni ko kenn waxee ci benn bande buy circuler mhm. ku ñuy jox quatre mille milliards chaque année mhm. ngay ñëw di taxaw naan euh, def naa ci pont ak tali mooy amoon dara looy wax gis nga li gënoon metti te moom xam na ko te buñ ko euh, bu xoolaatee ci gannaawam dina xam ne ne que ba muy ñëw ci li ñu gënoon soxla ci affaire wu doxalin bu bon gouvernance lu bari te gis nga loolu du xaalis loolu ab njub rek la ab yow fas yéene jug pour defar lu lépp loo xam ne gis nga ne dëng na nga xam ne yoon bi nii lañ koy defaree ak fii la ñu war a jaar nga taxawal ko. parce que mënuñu yegg si fii tey jii ba deux mille vingt deux ngay ñu yegg si ñu séntu pétrole ak gaz ngay jël décret bu mel ni kooku moom waxuma la sax louche. mais c'est clair que ay njuuj njaac rek ko tax a jug. ay njuuj rek tax a jug te ñu ngi compter ci assemblée bii di ñëw pour que lépp lu mel noonu même buñ ci mënul def sanction parce que nii la droit bi demee ak yooyu ñu am ay dossier yu leer nañ ci li xew ci ci ci ci ci ci mbir yooyu mbir yu mel noonu parce que loolu rek a fi fees ci dëkk bi suñu xamee lu leer nañ comme niñ koy waxee muy démb muy su muy tey muy suba muy gannaaw suba képp ku ci def lu dul loolu di nga ko di ko layoog sénégalais yi. d' accord léegi euh, Ndeye Fatou Blondin Diop euh, ñu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, dund gu dund gu cher gi njëg yi nga xamante ni tey gis nañ ne presque lépp dafa yokk waaye am na si yoo xam ne ñoom dañuy wax ne guerre bi am Ukraine ak Russie moo ko waral mm-hmm. mais am na économiste yoo xam ne man liir naa leen dégg naa leen. ñoo ne am na ci ay produits locaux yoo xamante ni kenn mënul justifier li nga xamante ni moom mooy hausse boobu. li bi ma ci njëkk mooy soccu. waaw ah, soccu bi doon jar cinq. <laughs> bon xam nga loolu mooy. Euh, dëkk bi euh, vraiment am na ci yoo xam ne dañu ameel àq seen moroomu diine. Hmm. jullit ak dañu ameel àq. Ah. te dañu ñeme lekk àq. Hmm. parce que euh, man mënuma comprendre am nañ loo xam ne ñëpp xam nañ ne que. kuy jëlee euh, marchandise benn dëkk di ko yóbbu benn dëkk asamalaak euh, euh, jugee Europe mhm. di jël conteneur di ko indi Sénégal di ko stocké port di ko dugal ci camion mu yegg si ba Linguère yegg si ba ba ba Ziguinchor wala maatam loolu yëpp njëg gi am na loo xam ne dina ci yokk mhm. kooku kenn mënu ko bañ wante yokk bi war nañ ko état bi war na ko mën a xayma ba nga xam ne ñu xam ne lii bis bu ne dañ koy jëfandiku bés bu ne moo xam ceeb moo xam dëwlin moo xam suukar moo xam yenn denrées yi comme soble laaj ah. mooy suñu base togg ah. donc yooyu mu encadré ko am ay brigade nu mu amee police de sécurité boo xam ne opposant bu bu dugg ci internet bind ñu gis la mhm. xanaa commerçant bi yokk gën a yomb ah, ndax moom mi ngi fii taxaw mhm. kon que comme ku posté ñu ñu ñu woo la gis la kon nañu na nañu kon defuñu moyen pour mën a téye pour xam koom-koom bi au moins ñu maîtriser moo yokk yi mën a bañ a yegg ci yenn yi léegi nag li nga xam ne moom euh, moom moom moom moom moom vraiment euh, mënul euh, nit ñi soxlawuñ ko noonu bu yokkee la c'est plus difficile mais li ñu soxla dëgg kooku état bi liggéeyam la mu encadré ko léegi léegi tam dafa am beneen problème mënuñu fi toog yaa a mois ñu naan soble bi dañ ko dañ koy tuur soble bi dañ dafa yàqu soble bi soble bi tey jii ñu ne soble manqué na ba di ko jaayee njëg gu mucc ayib kenn xamul lii mooy lan donc loolu moom du affaire euh, li ngay jëlee à l'étranger loolu mooy wax ji nga xam ne ça fait dix ans ñu koy dégg def nañu depuis euh, nu ñu koy wooyee sax les trucs de sécurité les euh, voilà ay ay plan horticulture bi ñu bëggee développer horticulture tourisme pêche le quatre pétales ak yooyu au ministère de l'économie et des finances ci la soble bi ak yooyu nekkoon boobu temps man nekkoon naa fi donc maa daan naa fekkee revue yu mel noonu parce que sama suñu suñu domaine technologie de l'information dafa bokkoon ci yi nga xam ne tam état bi daf ko jëloon pour mu gën a yokk Sénégal hmm. donc léegi bañ ko yokkee xiir ci ndaw yi ñuy dem di liggéey hmm. ñi ñi jël seen suuf moo indi spéculation foncière ñoo indi ndox investir kon bu yegsee circuit de commercialisation bi tamit liggéey bi la Uh-huh. bu ñu déggee piste rural man saa yi ma déggee piste rurale damay kontaan. parce que dama naan ñiy bay dinañ am ñu ko awale. Uh-huh. wante fuñ ko jaay wante fuñ ko stocké wante fuñ ko denc fuñ ko transformé ba nga xam ne soble bi boo ko daggee congelé ko euh, lu yàgg di nga ko mën a réutiliser bu ñu ko defee de manière industrielle. ah boo nekkee Europe doo fa nekk di jënd soble di dagg euh, euh, donc loolu yëpp mi ngi ci ci koom-koom li nga xam ne Sénégal li ñuy liggéey noon nañu fexe ba nga xam ne bu ñu amee surplus ñu mën ko stocké ba nga xam ne bu manqué ñu am ci wante tamit maîtriser euh, yokk-yokk coût yi nga euh, produit yi nga xam ne euh, fatalement dafa yokk parce que àddina bi yëpp la yokk. d'accord mais àddina bi yëpp la yokk mais am na réew yoo xam ne même Mali déggoon naa fi seen ministre boo xam ne nee na Mali dañ ko embargo mais am na lu ñu fi jaayee loo xam ne moo gën a yomb réew yi nga xam ne kenn embargo wu leen. wante li xew fan yi ah. nañ ko wax wax dëgg àddina bi yëpp la. yokk-yokk bi xew nii booy déglu information dëkk yëpp mu ngi fi am na ci dëkk yoo xam ne ñu ngi commencé yëngatu. no non par exemple tey ciment bi ciment bi yokk ciment bi. Euh, ñetti usines ciment moo fi am. man yokk gi madame euh, man Diop madame Diop man lu bari euh, Sénégal dañuy taafantaloo mais ciment bii ñuy wax nii. Mm. ciment bi 2019 avant coronavirus ak avant guerre bi ciment bi dañ si 60 doon na fi jar 60 000 après 2019 ñu yokk ci 5000 mu jar 65000 fi mu nii ma ngi ci 70 la nekk tey kon nag leneen tam dafa am état bi tam ay taxes rek lay lay dundee ah. moom moom du ñëw jàppale pour ñuy transformer fii di liggéey moom tax rek lay dundee jënd jaay mu jël ci pour centage teg ci kii loolu rek lay dundee moo tax du toppatoo loolu noonu. affaire kii maa sax ku titre xaw ma démb la xaw ma tey la ndax dëkk bi am na ministère du commerce. waaw ma ne da ngeen war a laajte ndax am na ministre du commerce. Hmm. voilà parce que des fois tamit yëf yenn yi yëfu naa fekk la. Ah, waaw mais mais mais mais tey euh, madame Diop mais yokk gi même garaaw na. mais noppi gi si état bi noppi sans contrôle loolu moo gën a garaaw. waaw parce que euh, euh, fii politique lañ tal. mais dañu seetaan ñun ak commerçant yi ah. mais bien sûr mais gis nga nag foofu nag gis nga man foofu laa commencé. ba may milité am na yoo xam ne tant que citoyens yi xamuñu ne que ñoo koy fajal seen bopp di xaar ñu leen koy fajal dañuy nax seen bopp. comme gis nga fu mu nekk nii président Macky Sall pare na na ci ñun ba deux ba deux mille vingt quatre. sunu jafe-jafe yoonu nekkatu ci. ba deux mille vingt quatre moomu soxlawaat na donc société civile non pas politique seulement politique ci lañ bokk mais surtout société civile. ñoom ñoo war a jóg wax ci vie bu cher bi gis nga pour pour pour pour expliquer rek société civile nu mu amee importance ci benn dëkk maa ngi liir ne que Maroc association des consommateurs dañu def collectif ay association dem ne ambassade de France yow suñu visa yi ngay bañ ba pare di ko facturer la ñu bëgg juridiquement nga expliquer ñu naka la demee saisir ko mhm. xam nga li ma la wax cest à day am moment yoo xam ne askan bi nekk citoyen du rek dem voter ñun mën nañ ko te ñu ngi koy def ci anam bu rafet waaw mais wante jug nekk par exemple vie bu chère bii président Macky Sall fexeel mënoo lépp wante fexeel ba def dara loo xam ne dina am lu muy wàññeeku ci ñun yaa xam da ngay jouer ci taxi yi su yaa xam les denrées essentielles euh, naka ngay def ba téye ko hmm. mais li ma la mën a wax ba mu leer nañ ak modèle économique bi ñu nekk nii tey jii nga xam ne modèle économique changé ko il foog faut dix ans quinze ans pour mu mën a am nu mu nu marge de manœuvre lu metti la ci moom lu metti parce que euh, état bi tax ak yow yi rek lay dundee. d'accord te moo tax du laal foofu moo tax muy waaf di seet ba mu ñor ñu ñun ba ñu jug ñun. Oh. nekk ko doo mur xoj ko. muy soog a def dara neewoon ngeen tant que loolu rek la du def dara Job neewoon ngeen ñu nag da ngeen ñu yeewi mais ba tey yeewi bi des ah ñun ñun non ñun yor ñun non ñun budget ah exécutif non da ngeen wax yi da ngeen ñu yeewi yeewi parce que mi yeewee guleen ñu si ñu leen di yeewi kañ xanaa ñu yegg si assemblée nationale ah, kenn euh, législature bi taxawagul sax le septembre la mais da ngeen ñu yeewi ay incha allah <laughs> incha allah léegi bala ñuy ñëw ci euh, assemblée ñu wax ci ACCT mm-hmm. bi nga xam ne tey yéen coalition Yewwi dangeen koo boycotté ak yeneen coalition ñeen ñu jàpp ne institution euh, budgétivore la institution boo xam ne clientèle politique dugal fa alalu réew mi seen njëriñ tamit ñu bari si Sénégalais jàpp nañ ne amul amuñu njëriñ. ACCT boobu yow lan moo ci sa xalaat. xoolal rek yaa ngi doon wax léegi dëkk bi dafa cher ma lay wax taxe ak impôt xam nga taxe ak impôt kenn du ko bañ bu fekkee ne da nga koy jëriñoo loo xam ne dafa amal njëriñ askan bi su boobaa sax yow. di nga fas jom pour ñëw joxe wante bu fekkee ne ay HCCT nga koy nga koy yóbbu jël ay élus locaux parce que loolu la élection indirecte la ñoo xam ne conseiller la ñëw ak yu demee noonu ñoom ngay jël yóbbu leen foofu nga ne leen lan ngeen di liggéey dee leen may xelal suñu xelalee ba bind ba pare parce que gis naa leen ñu bind rapport rapport bi def nañu lii def nañu lii def nañu am maanaa mais président Macky Sall teg ko ci suuf na man intéressé wu ma kon su boobaa loolu lu muy jëriñ lu muy jëriñal askan bi li mu koy jëriñal mooy ba mu ba mu soxlaa pour ñu ñu ko voteel ba mu soxlaa ñu ko wutali ay base mu wutal leen fu ñuy amee as bu ñuy politiquer loolu rek la koy doyee kon loolu ñun bu ñu taxawee ne mus d'accorduñ ci bu ñu taxawee ne bu ñu yàlla joxee réew mi dañ ko fi dindi ku ñu fekk ca xëccoo ba pour am poste dinañu ne yéen seen wax ak seen jëf méngoowul loolu rek la donc pour ñun vraiment fiñ ci toll nii rawatina fiñ ci toll nii tey ci mbënd mi fiñ ci toll nii ci ci vie ci ci ci ci lekk gi dund gi nu mu chéré ci la ngay gën a gis ne que yu mel ne HCCT ak yeneen ak yeneen bu ci état bi yëngatu woon tuuti rek gestu yërëm ci askan bi na mu fi dundee woon Sénat dina am as tuut loo xam ne xëy na dina wàññi njëgu dawlin ba wala njëgu njëgu leneen. d'accord léegi euh, madame Diop euh, assemblée national yéen coalition Yewwi euh, wàllu Sénégal yow yéen yow danga bokkoon ci liste national bi yéen bokk leen woon. ci titulaire yi nga bokkoon suppléant liste suppléante yi ñoom ñoo ñoom ñoo demoon. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam te ñoo bokk si yéen dem assemblée national ak assemblée nationale bi nga xam ne enjeu yi dafa bëri lu ne mën na fee xew ndax bu njëkk nguur gi da doon rawee mm, opposition bi euh, député yu baree baree bari dem nañ bay tey benn lañ rawee opposition bi ñëpp jàpp sax ne benn bokk yaakaar ci pression lay des ci def lay nekk ci ci ci mandat bi yëpp euh, yow assemblée nationale bii mm-hmm. noo ko gisee. damay njëkk a jaajëfal sénégalais yi. damay wax toujours ne bu benn sujet amee ñëpp di ci wax ñëpp tiit ma ne gis nga man sama xel dal na parce que lépp luñ ci war a wax danañ ko génne. Hmm. ba nga xam ne bu dara desul lu dul jël décision ñu bari danañ xam jël décision bi ñu xalaat ne moo baax. Ah. looloo xew ci assemblée bi ba ñuy voté. lu ne def nañ ko. lu ne def nañ ko mais sénégalais yi tey jii ñu méngook àddina bi daal. Hmm. ne. Euh, assemblée dëkk boo xam ne président bi déjà lu ko neex def. daa bëri doole. daa bëri doole su assemblée bi tamit bare doole ba nga xam ne dépu ay député yi nga xam ne moom moo moom moo leen fa teg en quelque sorte. Mhm. ndax doosu li ñuy wax raw gàddu bi euh, euh, moo bari ba nga xam ne moom mooy choisir kan lay teg fenn ba nga mën a gagner. Mhm. kon loolu boo amee boobu pouvoir ña fa nekk forcément. xam nañ liñ la ne yaa leen fa teg. ñu wax ko ñu bañ ko wax. ba nga xam ne sénégalais yi ne kon bokk ñu gën a yemale te bu ñu waxee dëgg ba wax dëgg ñun dañoo gañe. Ah, ah ñun dañoo gañe. ndax gañe weesuwul lu ñuy werante ku gañe. ñoom danañ gañe ci dëkk boo xam ne ci dëkk boo xam ne kenn mësul werante kuy gañe. Hmm. bu ñu toogee bay werante ku gañe. ay cohabitation di ko waaw nga xam ne foofu rek déjà. gañe nañ. gagné nañ donc kooku ñu ci delloo njukkal bu baax sénégalais yi bu ñu yegsee ba ci assemblée bi ah man di dama ne Macky am na problème bu rëy rëy rëy ah bon ndax euh, na mu doon doxalee moo ko yegg moo ko fekk si tey jii ci këram euh, di def chantage nit ñi pour di leen débaucher hmm. di fay nit ñi pour jëli leen hmm. ba ci maire Yewwi Askan Wi hmm. ba ci PDS député PDS maa ngi dégg Lamine Thiam di ko wax kon ñëpp xaalis la leen jëlee mbaa nga am dossier tey jii ñoo ñoo yore pouvoir bi député yooyu ñu jënd mm-hmm. ak ñooñu ñoo yore pouvoir bi tey jii moom mu ne condom mu mel ne râteau moom kese ñee taxaw fële ku ci nekk yooyu relation la am ak yow demal mbaa a génne sa dossier léegi nag tey jii nag ku am dossier Macky am na problème bu rëy a rëy rëy la même yow da nga yaakaar ne problème bi du député opposition mais pouvoir moom problème. ak yan député moom moo am problème parce que ñi mu àndal man man bokkuma foofu. mais damay seetaan di lire presse bi tous les jours mais xoolal nu mu def allié mi xoolal fu mu fi nekk tey xoolal nu mu def ñi mu ko njëkkoon a jàppale ba muy ba mu ba muy dem xoolal nu mu leen def na xaritu daawam yi xaritu barki démbam yi xoolal fi ñu yegg si tey xoolal ñu bees ñi yegg si naka la ñu dugg see te ñoo fi nekk tey ñi nekk Médina ñi nekk Thiès ñi nekk fii xoolal ci yan condition parce que man gëm naa ne ñooñu bi ñuy dem. Hmm. am na lu tax ñu dem ah. Hmm. tooguñu rek naan man dama ñàkk wala ree man man gëwuma yooyu. Hmm. dama foog ne am na condition yu leer nañ lu tax ñu def ko. parce que wax ji rafetul lépp bi rafetul. est-ce que jàpp nga ne Macky day pression. mais bien sûr que ëpp na ko. mais def na déjà loo xam ne daanu ko waan def. mi ngi taxaw di wax ak député yu ndaw yeeg yooyu moom dafa amoon ay nitam rek. yoo xam ne ñoom ñooy. ñàkkalu leen porteur voilà. tey jii député bu ci nekk benn député bu ci nekk or nga Sénégal. dëgg la benn bokk yaakaar. booy boo ñu xam ne or lañ. kon am na ñuy moyen def pression am nañuy moyen def négociation bu doon bourse bi tey jii ñoo yore code bi <laughs> plus que waa Yewwi ah. Askan Wi. d'accord parce que tey jii alliés yi am na ci ñoo xam ne ñoo bokk. meen ak euh, ak ñu na xam ne ñu ngi ci Yewwi Askan Wi ñu mel ne PS ñu mel ne AFP ak taxawu Sénégal ak grand parti ak grand parti ak ñi nekk réew mi ak ñi nekk PRP ñoo bokk ndey te xam nga ñun xam nañ sénégalais ñoom tamit ñu ci bari te bëgguma tooñ ñu baal ma ci kàddu yi marchandise lañ mais est-ce que tamit tey est-ce que marchandise lañ. ku gën a jarle ñu dem jaayu seen bopp foofu. est-ce que tamit gars yi député yi comme nañu la askan yu encaissé bennoo dem ci urne yi def lu la neex est-ce que député yi tamit mënuñoo encaissé pare bu ñu nee vote la vote secret ñu def lu leen neex. lu ne mën naa am lu ne mën naa am wante ki ci gën a am risque. mooy kan. mooy président Macky Sall parce que xam nga ñun bu ñu andee euh, euh, euh, proposition de loi xam nga day mën a jàll mbaa mu bañ a jàll. ñu voté ko mais moom boo amee projet de loi bu ko ñor yu mel ne yu yi ñu ñaaw yi ñuy wax nii bu mu indi foofu nga xam ne d'habitude genn wàll député yi duñ fa nekk mu am marge boo xam ne ma ne la dina wut jet privé ñu ramasser leen indi leen fii pour ñu toog assemblée votel ko ko mais d'accord mais euh... donc ah. donc on va dire que ci ni ñi ni muy gouverner fii ba élection présidentielle Euh, chaque moment bu soxlaa dëgg assemblée dina nekk euh, loo xam ne enjeu la bu rëy te député yi ñoo yore pouvoir bi côté yi Yewwi Wallu mais loolu baax na ci démocratie. mais baax na ci démocratie à condition que ñu bañ a def lii yenn yi def di ko jëfandikoo jëfandiku ñaaw hmm. ñi ci seet ne lii loi bi am na njëriñ askan bi wala ñàkkul na njëriñ. d'accord léegi député Yewwi Wallu député Yewwi Wallu ñi ngi ànd pour l'instant ñi ngi wax naan xëy na bu ñu demee assemblée ku ci nekk da ngay am sa groupe parlementaire toujours est-il que suñu àndandoo bi ak lu luñ ci mënti wax évoluer na tax na ba démocratie sénégalaise évoluer jóge nañu ci alternance bay tudd euh, cohabitation comme ni nga ko waxee sànq donc àndandoo bi ak luñ ci nit mën a wax am na lu mu indil Sénégal ci boppam man na li ma am ci correspondant à l'étranger kenn xamul lu mu toll ñoom ñëpp a jaaxle ci Sénégal. <laughs> day mais madame euh, Diop est-ce que tamit tey yéen li ngeen digoon askan wi comme par exemple ngeen taxawal ay euh, enquête parlementaire enquête parlementaire tey ci ci licence de pêche yi. ci ci ci euh, bloc yi ñu jox Total. Ah. wala engrais bi wala jiw wi est-ce que yooyu réellement tamit da ngeen. ci loolu. xam nga lépp loo gis euh, Sénégal quand dëkk la boo xam ne dafa am administration ak ay code ak ay loi loolu foofu rek lañ ko mën a xeexee c'est-à-dire dafa am anam yoo xam ne moom la dëkk bi tëral ne noonu la war a doxalee soo bëggee def commission d'enquête soo bëggee def commission d'information soo bëggee def lii soo bëggee def lii ak yow assemblée lii nga mën a def yow procureur lii nga mën a def yow et euh, exécutif lii nga mën a def mënuñu génn ci li nga xam ne mooy légalité mm-hmm. mais lii ma lii lii changé rek mooy lenn mm-hmm. li ñuy changé rek mooy lenn mooy euh, lañ daan def procédure d'urgence nga xam ne bés buñ ko voté day am conséquences yu metti yu yu ci sénégalais yi ba député bi ko voté bu delloo ca goxam ba gis ne que lii mu voté moo ko teg tolof tolof bi mm-hmm. ñu fexe ba nga xam ne askan bi dinañ ko yëg dinañ xam li ci nekk débat bi yaatu ba pare ñu xam ne lii nar a yàq senegal moom la Macky Sall ak ay nitam imposé ba ñu voté. d'accord kooku rek ñu ko amee succès la. d'accord léegi euh, madame euh, Ndeye Fatou Blondin euh, Diop fan yi yëpp Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi communiqué ci candidature Ousmane Sonko ñenn ñi njort ne dañoo bëgg sulli dossier Adji Sarr ngir fexe ba bloqué ko moom 2024 même moom wax na ne ñoo ngi koy complot yow loolu noo gisee noonu loolu. gisuma ci dara bàyyi leen ñu wax rek dañuy yokk ndam rek. est-ce que mënuñ ko bloquer. dañuy yokk ndam rek kenn mënu ko arrêté bu ñu amoon lu ñu arrêté arrêté du yàgg na xanaa gisoo fi ñu jaar pour suñu liste yi bañ a mën a bañ a mhm. bañ a dem. suñu amoon beneen yoon. Ah. foofu lañ koy jaarale amuñu leneen. lii ay ay presse rek la ay ay wax rek la. mais mënuñ est-ce que ko jéem a àtte jéem ko def sursis comme ni ko Sonko waxee na ko. suñu justice bi fi ñu toll nii. dafa am changement yoo xam ne bu amee ñëppay bàyyi xel ëllëg. ok ñëpp a bàyyi xel tey jii ne mille 2024 à la kuliyaalin affaire yi dina changé ak nu mu mënti demee yàlla moo xam naka lay demee mais dina changé léegi loo ciy def rek na jaar ci yoon parce que justice bi. ci yoon rek la mën a teg lu muy def. mais élection législative dafa mel lu bari rek la da ko ah élection législative gis nga askan bi ñoo ñu regleel lu bari ñoo leen won ne que yéen lii ngeen di def ñun. ñoo ñoo ci ñoo ñoo ko moom ñun ngeen koy defal boo leen ñu ci fàttee ñu fàttali ko ba ci léegi justice bi ci boppam ku fi jël décision boo xam ne du noonu conseil constitutionnel oo loolu yëpp dañuy taxaw di la seetaan mais am na lu gën a mag conseil constitutionnel mooy peuple bi parce que ñii Macky Sall moo leen nommé. conseil constitutionnel Macky Sall moo leen nommé mais peuple bi ñoom ñoo choisir Macky Sall donc bés bu peuple bi jëlee ki eh, na eh, jëlee fi ki ñu ki leen nommé kon ñoom li li ñuy def lan nag gis nañ fi Côte d'Ivoire benn conseil constitutionnel wax ne diw moo gagné toog quelque jour ne wax ne diw moo gagné kon loolu ban sacralité la am ci Afrique. d'accord mais mais mais, mais madame Diop euh, Sonko mi ne 2024 réew mi ci ay loxoom lay nekk. bu ko neexee wax ko. parce que mi ngi ciy liggéey. est-ce que gëmuloo yow. non gëm naa ko parce que nit ki da gëm sa bopp yow boo gëmul sa bopp ku lay gëm soo liggéeyul parce que gëm sa bopp du. tëdd sa ah, non non sa rek di gëlëm. c'est que jaar na local. mais est waaw. mi ngi mi ngi ci partem di gis partem nu muy évoluer jaar nañ fi local jaar nañ fi coalition loolu yëpp ay expérience la yooy xam Sénégal donc képp ku bëgg a nekk président képp ci ci anam yooyu ngay jaar. pour natt sa bopp pour xam ndigam mën nga dem wala mënoo dem moom natt na boppam gis na ne mën na dem. waaw moom natt na boppam yow sa gis-gis yow moom bokk yow li ngay gis peut-être bokkut ak lim gis. yow li nga gis ndax jàpp nga ne tey bu demoon élection mën naa gagné. waaw mais nee naa législative yi ñoo gagné. budul woon euh, Fouta Matam Ranérou Kanel. mais yeeyu ñoo gagné législative. de liste. Sonko bañ bañ bëgg. d'accord jërëjëf euh, madame Diop ñu lay sant di la gërëm. waaw ma di la gërëm euh, man tamit bu baax euh, di nuyu bu baax suñu waa plateforme notamment suñu coordonnateur général Cheikh Tidiane Dieye ak suñu naataangoo yi fa àndal yi fa nekkal yépp di vraiment di jaajëfal tamit mbuur parce que vraiment waa mbuur dañuy liggéey mm-hmm. di jaajëfal jigéenu mbuur oh, waaw jàmbaari jigéenu mbuur mm-hmm. ay liggéeykat lañ te metti na ci ñoom te ñi ngi ci terrain bi tous les jours di remercier tamit sama doom yi sama sët yi jeunes yi ils sont très bien wax dëgg yàlla man lu bari lu su ma koy def léeg-léeg ma xaw a sonn léeg ma xaw a toog mais su ma leen gisee dama naan lii rek laa amee Sénégal daal voilà lii laa amee Sénégal jox nañ ma bourse d'études jàng naa ak yépp li ma mën a def tey jii rek mooy fexe ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy liggéey pour tuuti changement am bu ko yàlla defee changement yu rëy am. macha allah jëf jërëjëf jërëjëf euh, Ndeye Fatou euh, Blondin Diop moom la ñu invité woon tey moo nekk adjointe plateforme Sénégal bi ñu bëgg mu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi li mu nekkoon seen émission pencum réew mi mu yam samedi bu jot 15h 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck ngeen jëf jàmm ak jàmm.